li ci jiitu woon amin bi mu am mhm. nga ñëw ci alxuraanul karim it ci turu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaati min baadi ismu ahmad googu ak setantal yu am solo yooyu nga xam ne moo ci am mhm. imaam ni ma lay def rek mooy bàyyi la ñu ñëw ci beneen tomb bi nga xam ne moo ci topp door a jël auditeurs yi fëgg ci ligne bi wak jë mhm. kon alxuraan ngoogu gis nga ñim doon weer ci ay nafeq ci ay yahud ba ci ay jullit ci seen secret ay yooyu ñu wax mais bokk na ci aspect prédictionnel yi aussi et yoo xam ne bi ko alxuraan di wax boo sukkandikoo ci xelum nit danga naan naan mënta nekk seetal yéen ay jullit yi bi ñu nekkee màkk ñi leen di bund xataal di leen ray ak lu nekk yàlla wàcc aaya ne ah, la aghlibanna ana wa rusuli mm-hmm. te te loolu am na <laughs> waaw ba ba ci gën yéeme xoolal na alif lam mim dafa am benn historien bu mag bu ñuy wax Edward Gibbon mm-hmm. dafa bind benn téere bu muy tuddee l'histoire de la chute de l'empire romain mm-hmm. mu ne li ko gën a jommal jamono ji alxuraan di wax ne romain yi danañu gañewaat perse yi mm-hmm. mu ne jamono jooju boroom xel ak boroom xalaat ak boroom jàngat leneen la mënoon wax lu dul loolu nee ndax ki ñu wax Hirak la mooy bi mu ñëwee jot ci nguur gi fukki atam yu njëkk yi ak ñaari daf doon tegtale ne empire romain dafay jeex fa ñu doon yaakaare ne fa lay jeexee fa la ñëwaate fa la ñëwaatee ak doole ak kàttan am victoire woowu ma ne ko alxuraan ko wax mhm. te alxuraanu xam-xamu yàlla la mhm. dogalu yàlla la mhm. atte yàlla la li mu wax nam ko waxee noonu lay amee alif lam mim ghalibati ruum fi adna ardi kataballaahu la aghlibanna ana wa rusuli ak yeneen aaya dañuy mhm. gàttal léegi mhm. taxañ waxtaan wi moo ci des <laughs> bu ci nekk rek mënoon nañ ci gàttal guddal léegi nag ñu ñëw ci beneen côté boo xam ne mhm. mooy bi gën a jommal nit ñi mooy miracle scientifique di Coran muy alquran ak science moderne alquran ak scientifique yi nekk ci seen laboratoire alquran ak professeur d'université yi gën a mag te duñu ay jullit naka la alxuraan feeñalee ay secret ci science embryologie ci muy nit bu nekkee ci biiram naka lay yokk naka lay màggee ci science océanographie muy géej yu mag ci adduna bi loi yi cay nekk ci science astronomie la ca boroom xam-xami jàng tey te ñu gis ne yàlla lam doon duñu ci alxuraan ne sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim yàlla ni mu ko feeñalee ci borom xam-xam yooyu dafa yées dafa mm-hmm. yéeme tey mm-hmm. ak li yàlla doon wax ne wa yara allazina utul ilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alxaq mm-hmm. les vrais scientifiques les grands hommes de science ñu gis ne yow li ñu la jox Muhammad mooy dëgg kooku waxtu bi moo gàtt waaye lii rek doyoon na ay tam soo demee ci ku ñuy wax Maurice Bucaille téeréem laa yore nii. Hmm, d'accord gis nga jàng mu ah, mi ngi ko tuddee la bible le coran et la science. nga xam ne bible daf ci comparer bible. ak alxuraan ak science. Hmm. mu gis ne alxuraan day dëppook science amul benn contradiction amul hmm. benn problème. benn alors que yeneen téere ya bu ko dëppaleeg science bi du ànd. moom Maurice Bucaille moo bind di wax ci introduction livre bi. ndeysaan di wax ne alors que l'on trouve dans la Bible dans la Bible mhm. de monumentales erreurs scientifiques ici je n'en découvrais aucune mhm. ce qui m'obligeait à m'interroger si un homme était l'auteur du Coran comment aurait écrire au septième siècle de l'ère chrétienne mhm. ce qui s'avère aujourd'hui conforme avec les connaissances scientifiques les mieux établies de notre temps mu ne alxuraan ba mu ñëwee léegi mën na junniy at ak ñeenti téeméer ak yu tegal mm-hmm. science weddi na grand philosophe yi mm-hmm. weddi na Platon mm-hmm. weddi na Aristote mu ne weddi na bi ñëpp science weddi na ancien testament weddi na nouveau testament benn téere mooy téere boo xam ne alxuraan euh, bi science weddiwu ci dara mu ne kon nan la ñuy nangoo ne téere boobu ci nit la joge ko mm. bu doon ci nit lay jógee ko xelam lay sukkandiku wala xel waa sociétéem mhm. wala xel waa réewam mhm. te xel moomu jubut mu dugg dugal ko ci téere bi bu mhm. ñu gëstoo gis ne li amul muy wax ne après après confrontation des données scientifiques avec les énoncés des écritures saintes j'ai pu présenter dans la première édition de ce livre ñu gàttal français bi dafay wax ne téere bi mu ngi ko mool 1976 euh, muy la Bible le Coran et la science édité nañ ko avant 1986 15 fois mu am prix livre d'or kon du téere bu ndaw euh, mu ne euh, li mu ko wan gannaaw bi mu comparé waxi téere diine ya fi jiitu woon ak science mu ne lim ci jànge mooy le Coran ne contenait aucune information en contradiction avec les connaissances les mais établies de notre temps alquran mooy benn téere boo xam ne amewul benn information bu science mën a dammate bu science mën a weddi hmm. bu science mën a wane njuumteem mu ne waxuma la loolu mu ne mu ne loolu moo tax moom docteur Maurice Bucaille muy wax ne 1976 hmm. boobu moo proposé faculté de médecine bu Paris hmm. defal leen benn conférence sur les données physiologiques et embryologiques du Saint Coran alxuraan la ko la wax ci physiologie mooy organisme ni muy doxee xam-xam boobu gëstu boobu ak aaya alxuraan yi ñu wax ci lu yéeme ak embryologie mooy nit bu nekkee ci biiru ndeyam ni muy yokkee ak na muy màggee. kon la koy jaral mu def ci benn conférence faculté de médecine. 1976 mhm. loolu du caaxaan. ba bind ko ci téeram bi te kenn bexalut saxalut ko ci bekk sukkar mhm, mhm. nga nga nga jël ko aaya wa yaral lazina utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika alxaq ki kenn la ci ñooñu bokk na ci ku ñuy wax Kate Moore c'est un savant américain muy euh, embryologiste bi gën a mag ci adduna bi États-Unis d'Amérique mës nañ fee créer benn commission ne nañu seet scientifique bi def livre de science bu bu am solo te moom rek moo ko bind ket Moore bi livre bi mu bindoon sur la si l'embryologie mu tuddee ko la développement humain livre boobu moom la commission bi euh, euh, prime gis nga bañ ko wanee aaya alxuraan yi wax ci embryologie dafa jommi moom Kate Moore ba dafa nangu ne aaya alxuraan yooyu wér nañ wér yoo xam ne mu ne c'est une description hmm, mm-hmm. scientifique ah usuel réel et accessible mu nangu aaya alxuraan yooyu bu muy def troisième édition ci livre bi ñu dugal ko ci ndax naka la dëppoog la mu jàngoon ci embryologie eh, te te te te te te loolu corrigé parce que moom dafa waxoon moyen âge amul ko xamoon embriologie ñu wan ko ne ko aaya alxuraan yi moo tax euh, bu mu defee benn conférence journaliste yi ne ko wax yow xanaa da nga tub dugg ci l'islam mu ne ah ba ma tuubu dugg ci lislaam itam day jege naa ko te jëfewul ma benn bis ñu ngi waxtaan eh, ci ci ñi ni ci ci ci ci ni ci ñi nit ñi war a gën a xam mm-hmm. moom imaam Ndari Diop mii incha allah man ci ñi ci jiitu laa eh, laa laa ko boole ñu ngi kontaan ci jokko bi léegi ñu ngi maa ngi wax chapitre boobu bu ñu koy bind alfaiqa bi shahadatil axirina mm-hmm. ci téere bi laa inspiré wu moom laa njëkk tudd mm-hmm. indi naa ci ñeneen après sax wal fajiri journal wal fajiri mhm. bind naa ci benn article mhm. ñi publier ko maa ngi ko tuddee woon la supériorité sublime mhm. di prophète Mohammed attesté par les autres macha allah gis nga ni ma toogee fii def waxtaan bi ci ay heures yi heure waaw yooyu eh, yooyu mënoon naa ko def ci ay. dëgg la dëgg xam nañ ko ah, kon lu rëy rëy la danañ ko gën a yaatal ak yow <laughs> incha allah. waaw waaw ah, bind naa ci français bind naa ci ah. araab dañuy door a tàmbali rek. Eh, eh, léegi nag ñi ñëw ci kenn muur boobu. Uh-huh. bi mu waxee loolu gars yi ne ko da ngaa tuuba mu ne ah fekk boobu benn conférence la defoon Canada. Uh-huh. di wane concordance bi am diggante alxuraan ak embryologie ak science ñu ne ko waaye yooyu la jullit yi ñoo ko doon wax. Uh-huh. yow scientifique bu toll ni yow nangu sa téere bi ñu ciy dugal ay alxuraan ak nangam ak i nangam. mu mu ne ah mu ne leen loolu daal tuub gi daal lu yomb la waa léegi damay ñëwaat ci keneen koo xam mi ngi tudd Tajata Tajason Tajason moom professeur thaïlandais la réew tudd moom Tajata Tajason Tajata Tajason Tajason Tajata Tajason Tajata moom moom Thaïlande la tur bi sax xam nga genre yooyu la waaw tur bi rek moom la jàng moom xam nga fi fi ko alxuraan jommalee mhm. eh, inna allazina kafaru bi ayatina saf kullama nadijat juluduhum baddalnaahum juludan xayra ci aaya boobu la ne lii ci yàlla rek la mën a oh. jóge ko parce que mu ne parce mu ne brûlure lakk-lakk su àggee ci troisième degré ak lu mhm. tegal mhm. la waroon a eh, yëgloo nit ki méttit dootu ko yëgati dootu ko yëgati mu ne lu tax yàlla ne yéeféeri bu ñu leen lakkee ba seen deer yi ñoo dañ leen di indil yeneen deer yu bees mhm. pour ñu yëg mbugal <laughs> mu ne aaya boobu loolu lay junji nga xam ne aaya ji suñ borom dane ñi dugg sawara waaw bu leen lakkee ba yàpp ba seen yaram xëm ba yëgatuñ ko day deesalaat yaram waaw waaw waaw ne waat di lakk waaw xam nga léegi nag dañuy taxañ taxañ bu moo tax ay ayca ay ayca ay ayca léegi daal moom bañ ko toppeek yooyu di ko topp ak yooyu mhm. dafa mujj benn congrès international mhm. ci la taxawee mu ne leen maa ngi gëm ne li alxuraan waxoon ba waag léegi mën na junniy at ak ñeenti téeméeri at hmm. léppay dëgg hmm. léppay wér hmm. te science am na moyen yu mu ko gisee yu mu ko wanee man maa ngi leen di gëmal bis ni ki ci kanam congrès bi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tajata tajason masha allah taylande bi tajason waaw jërëjëf tey boo tey boo Armstrong si ñu demoon ci weer wi la bokk moom alxuraan ni ngi ko jommalee ci benn aaya rek dañ ko laaj bi xool aaya bi yàlla wa anzalna al hadida mhm. scientifique la. Mhm. ak littéraire à la xaaral ma jël kii ñu ñëw ñu ñëwaat ci boobu. Euh, moom moom jaar gi moom it bisimilah salaamaaleykum. waaleykum waaw ku baax kan la. waaye Mouhamed Ndiaye damaa daanu la rek. Kër Massar bisimilah waxal imaam maa ngi koy bu baax. maa ngi lay fay bu baax a baax. Euh, di ko jaajëfal di ko ñaanal fu ñu mën a tallu. parce que lu ëpp ci lu ñuy jàgganteku. Mhm. ci moom lay doon. macha allah parce que ñoo bokk cité ba Baobab. man maa ngi liggéey ci usine bi sa stage. Ah, dëgg la dëgg la jërëjëf. waaw muy ku baax wax dëgg wàlla am ngeen imaam bu baax macha allah. waaw moom moom kay kenn la dama ne la. waaw waaw. li mu leeral ci sunu dënn yi suñu xam sunu diine ba ëpp mënuñu koy wax xam naa nu ngi ji tax ko dëgg na nañ dañ koo sopp te yàlla rek la moo tax bi ma bi ma di ko déglu ma ne il faut moom wax ko ne ko na nga ko fexee miin xamal ko suñu cofeel ci na ko fexee miin ku nekk ku baax incha allah rabbi di dinañ mënante bu soobee yàlla da koy xam miin ko te ko jàppale ku baax dafa jar a xam su rawatina ku mel ni moom li a neex ci ay waxtaanam mooy wax ji dafay am solo parce mm-hmm. mooy dafay indil histoire yu démb mm-hmm. Mm-hmm. pour ñoo gën a xam dëgg dëgg dëgg li ñuy téye lan la ñun jullit ñi. parce que gis nga lu baax su fekkee histoire bi mu taarix bi boo ko toppee. Mm-hmm. mu ngi ko jëmmal li li ngay wax rek. Mm-hmm. Euh, loola def naa te ci constat bi mu waxee moom alxuraan ji muy ji muy duggee ci sa bopp bi. Mm-hmm. te amul dara lu ñu war a mën a tax yow doo ko dégg wax dëgg yàlla. waaw explication bi leer na njàngale mi leer na. waaw fakala mais nag neexu moom danañ koy namm lool sax aljuma. Ah. léeg-léeg dañu toog diir duñ ko gis. macha allah waaw. mi ngi lay dégg loolu si jumaa ji toog seen ko mu taxaw parce que waxtaanam macha ah, allah. jërëjëf ngi lay ñaanal bu baax di la jaajëfal. jërëjëf waaye. kontaan nañ ci yow trop. bu ñu ah. la topp nag yàgg na. macha allah xaw naa ne ay ay at ci ginnaaw. macha allah booba yàlla dogal na ñëwaguñ sax. macha allah benn plateau télévision Walfadjri. macha allah boobu ñu ngi wax ci affaire monument de la renaissance. macha allah ci laa commencé di bàyyi xel ci yow ba léegi. macha allah macha allah. waaw. jërëjëf jërëjëf ci débat boobu. ñu ngi sant bu baax di la jaajëfal. Mouhamad jërëjëf eh. la imaam macha allah macha allah moom bu ndaw waaw dëgg la dëkkandoo ak ba nga xàmmee ma waaye man xam naa la boobu de wér na moom waaw loolu day Seydina waxoon waaye ay ca imaam eh, mën nañoo bàyyi nga wér foofu waaw léegi léegi boobu il faut ñu indi ko wa mhm. anzalna al hadida mhm. Armstrong ci borom xam-xam yi demoon ci weer wi la bokk mhm. ci savant de la NASA biñ ko laajee dañ ne ko le le fer mooy weñ yi ñuy jëfandikoo. Mhm. Eh, waaw léegi fan la jógee ko fan la juddoo histoire boobu. Mhm. dafa yéeme. Mhm. mu ne leen lenn laa leen mën a wax de fer muy weer jóge kowul ci asamaan ak suuf dégg nga mu ne ko ndax système solaire bi nga xam ne ci la ñuy dund ñun. Hmm? énergie bi mu am yóbbu maanaam jant beeg weer week yeneen yi ci aju yëpp. seen énergie boo ko dajale xoon hmm. mënta créer atome ci fer manta amal atome ci fer il faut nga multiplier ba mu euh, nekk quatre fois mhm. mu doogay mën a créer un atome mhm. ci fer mhm. waaw ñu ne ko nag yàlla dafa waxoon ci alquran ne wa anzalna al hadida Mhm. weñ dañ ko dañ ko wàcce wàcce léegi bu alxuraan waxoon ne dañu defeer weñ ci suuf waaw bu boobaa kon day teg waxi waxi nit waxi nit la te xam euh, te loolu ku ko déglu xam ne waxi xel mu xóot sax moo cay àgg ndax feer ni mu feeree de euh, jóge ca kaw ga loolu suñ borom rek subhaanahu wa taala moo ma waaye de xam nga boo déggee wax ji dëgg waaw moom dafa nangu ne waaw système solaire bi yëpp waaw ci kaw la nekk non non mhm. système solaire bi muy mhm. jant beeg weer weeg suuf seeg seen énergie yëpp boo ko dajale xoon Hmm? mënta mënta amal atome ci fer. Mhm. pepp suuf ci fer. wala lu ko gën a tuuti mënu ko amal kon bu fer amee feneen la jógee. Mhm. Mhm. te mooy li alquran wax. dégg naa la léegi bu mu ne système solaire bi. énergie bi mu am da nga koy def ba mu di ñeenti yoon. Mhm. mu doogay mën a amal atome ci fer. dégg naa fi nga waxee. kon maanaam bëgg a wax ne ci kaw mhm. rek la mën a jógee ko. Mhm. ak yeneen ay yu baree bari. am na solo ñu jël waaye comme li ñu wax rek. imaam fi nga tolloon léegi am na solo lool. tabaarakallah. Ah. waaw xam nga loolu aaya boobu rek. waaw dama doon ànd ak borom xam-xam yi balaa ma noonu lañ mënoon a jële aaya par aaya. tey boo seeteen aaya bi yàlla di wax. Euh, wa inna lakum fi l anaami la ibra mm-hmm. nusqikum mimma fi butuniha aaya boobu mm-hmm. li mu jommal ci scientifique mm-hmm. xolal meew mu weex tàll tàll mi ñuy naan xaaral ma jël kii ñëw ci meew mi bu ko defee <laughs> meew mi moom neex na moom waaw ci auditeur bi sax laay tëjee <laughs> auditeur nee na am na solo wallaay salaamaaleykum kooku génn na imaam ayca wa inna lakum fi l anaami la ibra nusqikum mimma fi butuniha min bayni farthin wa damin labana eh, ministre bi kaay mi ñu doon wax la bible le coran et la science bi mu ñëwee ci aaya bi bi mu koy firi mu ne ñu bare dañuy tafsir alxuraan tafsir boo xam ne ci luga la ñu yem mhm. te alxuraan passé na luga mhm. Mhm. mu ne nag aaya bi pour ñu firi ko dañuy ñëw ci xam-xamu physiologie mu ne nit bu lekkee dara yàlla bind na ci biiram tube euh, digestif boo xam ne am na yu ci yàlla def mooy mokkal ñam wa su ko mokkalee mu nekk li ñuy wax fart fart mooy sébbilit maanaam mu mel ni buy yi noonu. Mhm. dem ci butit yu ndaw yi. Mhm. foofu mu nekk ci butit yu ndaw yi nag fala li ñuy wax les vaisseaux sanguins ñëw fekk ko fa muuc ko. Oh. suñ ko muucoo jël li ci dundal di ko transporter mu ñëw ci deret ji. bu ñëwee ci deret ji deret ji di ko yóbbu. Mm. ba bu demee ci les les les les glandes productri productrices di lait. Mm-hmm. su ko defee foofu la meew ma di juddoo. Mm-hmm. mu ne xoolal ni ko alxuraan waxee. fii dépassé na xam-xamu arab yi di dem di dem tey boo ñëwee ci fi yàlla di waxee ci am alquran anzala mi as-samaa'i maa'an fa axrajna minhu xadira hmm. nuxriju minhu habban mutarakiba hmm. yàlla day wax ne ñoo wàcce gàncax hmm. mu am ci une matière verte bismillah imaam kon ñu continuer ci fi nga nekk euh, waaw kon gis nga aaya boobu yàlla mu ne matière verte boobu lu yéeme la ndeysaan euh, les borom xam-xam yi jàng xam-xamu botanique muy mbiru gàncax Eh, bi ñu defee gëstu pour xam meññant lan moo koy indi ci ak gàncax dañu gis ne gàncax gi dafay am genre usine verte ñoom ñu koy tuddee seen terme scientifique représentation chlorophyllienne ñu usine wert yooyu moom mooy indi cuub bi jox garab gi cuub gi mu am premièrement mais deuxièmement meññant mi garab gi di meññ ji ëllëg ci usine verte yooyu lay joge ko yàlla di ko junj ci alxuraan yemu ca mu ne unduru ila thamarihi ida athmara mm-hmm. mu ne bu ngeen bëgg a xam yoon wi ngeen di jaar ba xam secret boobu mm-hmm. ba xam mbir moomu gëstu bi na ngeen ko jaaree ci mbiru meññant mi mm-hmm. effectivement gëstu ci mbiru meññant boobu ci la ñu gisee loolu kon loolu itam jommal yéeme euh, borom xam-xam yu bare bare bare bare bare kon daal alxuraan lépp lu jommal ak yéemeem ëpp na ak jommaleem ëpp na tabaarakallah maa ngi dégg jenn aaya ju ñu wax man yurid an yudillahu waman yuridillahu an yahdiyahu wala bi an yudillahu yajal sadrahu dayqan xaraja dayqan xaraja waaw ka annama yasadu fi sama boobu itam damay dégg science yi di ci génnee ay sew sew wax ne bi suñu di wax loolu ci ku yëkkatiku ci kaw ni ab dënnam di xate jamono jam koy wax léegi ku yëg avion bu am na fu muy toll day am benn kii boo yëg te booba mi ngi wax ne koo xamante ne daal dafa won ginnaaw boroomam subhanahu wa taala day mel ne ab dënnam noonu lay noonu lay xate daay man Euh, waxuma ma yéeg avion mais mais mais mais mais mais kii yi ñuy yéegee ci biddiw yi. ci étoiles yi waaw waaw ci kaw asamaan. Mhm. Euh, te xam nga léegi nit am na àgg na ci science foo xam ne. Mhm. tey milliardaires yi. Mhm. ni nga mënee jëlee avion nga dem ci benn réew. tey bu la neexee nga jëlee ko avion dem ci weer wi. mais pour dëggal aaye bi. balaa ngay dem ci voyage yooyu. dafa am ay machines yu lay dugal. di tàggataat sa yaram di la solaat yeneen dàll yu bokk ak yi nga daan sol di la solal yeneen yére yu bokk ak yi nga daan sol di la jox beneen oxygène boo xam ne moom ngay nooy boo demee ba àgg foo xam ne sa sa yaram wi euh, condition atmosphérique yooyu mënatu koy supporter su ko defee yooya moo lay jàllale kon gis nga loolu la borom bi subhanahu wa taala doon junj ci aaya bi xat-xat boobu eh, di nekk ci ñoom parce que parce que parce que parce que condition atmosphérique yooyu dëppwu nag li seen yaram mën a supporter gène boobu effectivement eh, ñuy yéeg dem ci eh, weer wi wala yi ñuy yéeg dem ci yeneen étoiles yi mhm. xam nañ ko moo tax balaa ngay dem dañ lay préparer man préparation bi xam nga lu ma koy niroo leen mm. xam nga lu ma koy niroo leen mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam balaa muy def israa mi'raaj xam nga malaaka bi dafa ñëw hmm. xotti dënn bi hmm. ndeysaan dëgg génn ci yoo xam ne waaw waaw man dama jàpp ne mooy hmm. scientifique yi aussi balaa ñuy dem ci yenn voyage yi noonu ñu leen di préparer so da ngay gis ñu leen solal yeneen dàll yu bokk rek yañ doon sol yeneen yére yu bokk rek yañ doon sol mhm. ak yeneen yoo xam ne bu ñu demee ba seen nooy xat mhm. mooy tax ñu feex moo tax du ñu étouffé wu moo tax du dee ma ne est-ce que nekku ne yàlla moom la defaloon yonent bi alayhi salaam balaa muy dem ci tukki is Cheikh Mamadou Fadal Kax di nuyu suñu bàyyi Cheikh Mamadou Makhtar di nuyu waa Sébi Xotaan yëpp imaam nag agsi nañ ci catul jotaay bi xam naa dama lay jox rek nga indi sa kàddu gu mujj ci jotaayu tey bi macha xanaa li ñuy wax rek mm-hmm. <coughs> alquran ngoogu la tanqadi ajaibuhu ay kiimaanam du jeex euh, li xëy na junj yu ndaw ndaw la junj yu gàtt-gàtt la su ko defee ñu delluwaat gën koy fonk ci suñu bopp mm-hmm. ci suñu njaboot mm-hmm. ci jàng ko ci mokkal ko ci xam ko ci jëfee ko Sénégal nag loolu moo fi cosaan woon loolu lañ fi xamoon su ko defee ñu delloo si cosaan loola luñ ci njàmbaas itam lu am solo njàmbaas itam du yàq sër yaakaar naa ne ki yàlla indi nii mu mujj dugg dafa nekk benn modèle boo xam ne yàlla moo ko indi ndax njàmbaas googa ñuy wax mhm. njàmbaasu na ci macha allah mhm. ba bokk ci ñi ñu ci gën a jox cër ci réew mi te ko xam lu mel ni OFNAC ak li muy liggéeyal réew mi mhm. ak li muy indi ak yooyu la yëpp mhm. njàmbaasu googu moo fay yóbbu nit ci côté beneen bi waaye waaye beneen côté bi fi cosaanu woon itam mooy bu ñuy waxtaanee mhm. tey boo ci duggee moom rek euh, da ngay jàpp ne loolu rek la xam ma jàpp ne loolu mooy ndam loolu loolu loolu loolu loolu mooy succès yàlla na ko yàlla def ci ñun def ko ci suñu njaboot euh, def ko ci réew mi su ko defee réew mi di doxee ñaari tànk tànku démbam ak tànku tayam te lislaam itam diinay ubbeeku la ubbeeku ci xeetu xam-xam yi yëpp mhm. te buntu xeetu xam-xam yi yëpp mooy alquran mhm. wax naa la loolu Cheikh Ahmad Bamba wax mhm. euh, la laa tahjuranhu watluhu mu abada wastanbitan ma ma chita minhu abada min al ulumi am su ko defee loolu de loolu daal mooy kàddu gu mujj gi incha allah di la sant di la gërëm ci dalal gi bu baax a baax a baax a baax ñaan rajo bi yal na yàlla yokk ndamam yokk succès yokk jàppaleem amiin incha allah gars yi wax nag dañ may invité yooyu man du ma nitu média damay faral di wax ne ñaari média bu ma woo daal ma dem su ma paree dellu ci sama ruq te balaañ may woowaat noonu daal foofu daal laa ko jàppee loolu sax moo sabab mbokki daara yu bari <laughs> lu tomb bi nga waxtaane dëgg la dëgg la dëgg la bu jàpp jàppandee rek nga mën nga koo joxe. waaw dagg téléphone bi. waaw ak ah, waaw bu dee moom daal dañ ko soxla te yow yaa ma ko sant. waaw eh, am na orange 77. waaw 557. waaw 62. 66. Mhm. am naa expresso 70 202 66 91. mi ngoog waa kay jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf Seck taarikàlla jërëjëf jërëjëf jërëjëf Imaam Xasan sekk ñu ngi koy jaajëfal jaajëfal auditeurs yi jot dugg yëpp nag ku lim waxtu wi moo ñu daal di tënk rek looloo tax dañu daal di wàccee foofu suñu kaddu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu dégg defal ñu ak topp bu ëllëgee ci waxtu wi dañ ñëwaat ak yéen ci suñu jotaay bi di An-Nour siqaat ko jombut ak geneen gan ak ay yeneen itam incha allah 16 heures ba 17 si ci jotaayu daara ji boobu di xamtu soxal lu aju ci ay laaj ak ay tontu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa sanamdiju muhammad nabina Amen. bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo si seen jataay mu tuddee nisaaun xawla rasul ngeen koy am mu nekk benn rubrique ci albidaaya ni ko xaaj Mbàkke si la di waxee dellusi na di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall nisaawun xawla rasul ay jigéen la yoo xam ne li ngay wax mooy jigéen ñi faroon ci làngam <clears throat> moo xam mook ñoom ñoo bokk jamono wala bokkuñu jamono waaye ci làngam lañ far nun la ñuy déggee nisaawun xawla rasul <clears throat> kere bi mu feeñee jamono ba ba addunay tukki lu jiitu muy feeñ jamono jigéen ju baax ci pénc mi ci làngam nga bokk jigéen ju baax ci pénc mi ci làngam nga bokk lu jiitu lislaam gis ngeen fi jigéen jaaroon àndoon nañ ci mag yéen ci bind bii nga xam ne moom la am mu tudd nisaun xawla rasul <coughs> gisoon nañu bi mu ñëwee moom sallallahu alayhi wa sallam yu jigéen tàmbali am teraanga yu jigéen tàmbali am ci wàllu jële ko fa mu nekk indi ko fi mu war a nekk loolu sallallahu alayhi wa moo ko liggéey jigéen ñi ñëwoon nañ ci tomb bu am solo te mooy liñ tuddee philosophie polygamie philosophie polygamie moom nag saa boo ko tuddee ci pénc mi nit ñi defe ne mbirum kaf la ñenn ñaa teg ko mbirum ëppal tubaab yi jàpp ne mënul nekk te bërki démb wane nañ ci réseau yi tubaab boo xam ne mu ngi ci juróomi jabar <laughs> juróomi jabar boole leen nag ci génn kër waaw cinq femmes yépp ci génn kër bébé yeeg doom yi ñépp ci kër gi ma sonn naa ci gis koo xam ne ki moom romb na foofu waaye ñooñu nga xam ne ñooy tubaab yi ñu ngi tàmbalee xam li muy jëriñ rawatina waa almaañ <coughs> tomb boobu xawoon nañ ci yàgg ci suñ bind bi nu weesu <coughs> eh, ma ñëw ci beneen tomb professeur mooy lu tax bu ñuy miraas ñu ne góor ñaar jigéen benn te waa penc maa ngi koy tàmbalee diiŋat te xam naa ko yàlla nattoo ngay diiŋati waxam giraawaali goo gis looloo <clears throat> loolu kenn du ko def te wax yàlla it diir ci dugg ki xalaat ki pexeeg sama gisin déedéet ay texte la te texte kenn du ko am di jaar ci mbooy gi loolu daal guddi gàtt su na ko doon misaal mooy maag nogay nu bokk baay sunu baay génn àdduna bàyyi noog ñetti junni waaw maag nogay nu bokk baay sunu baay génn àdduna bàyyi noog quinze mille ñetti junni ilimaan mi miraas daal di may jox ñaari junni jox nogo yi ak junni bu nogo yi doxalee xelum boppam ci ni ko yi dégge day wax lu tax ma koy ëppale te noo bokk baay est-ce que li may jigéen a tax loolu coow li ci am kenn xam nu mu toll jàpp ne yàlla mi jox yi ab cinq mille dafa xeeb nogoy pourtant nogoy jigéen la ni ni Alioune nekk góor ëpp ko mu xel mënu ko rawu ko te noo bokk bàyyi wala sax noo bokk ndey ak bàyyi pourquoi may am cinq mille moom muy am dix ki ko def nag du nit loolu du yonent moo ko def waxuma la Abubakar ak Omar ak Ousmane ak Ali kenn defu ko ci ñoom du imaamu Malik ko def du Anafiya du ab du Hanbal du Abu Hanifa kenn defu ko ci ki bind nit ne kii mooy jigéen ne kii mooy góor kookoo ko def li dakari mithlu xaddil unsayayni ginnaaw Alioune Sall ak Nogay seen waajur moo génn àdduna bàyyi leen ñetti junni jox joxal leen ma Alioune Sall ñaari junni joxal ma Nogay junni <coughs> bu dee ci xel ginnaaw bi ñu ko nangoo ba noppi mooy nogoy ñaari junneem yooyu lum ciy jënd ah junneem boobu kon lum ciy jënd man sama ñaari junni lu ma ciy jënd bu nu noppee man duma dem ca nogay laaj ko ca junneem ba lu ma jënde waaye moom sañ naa ñëw laaj ma sama ñaari junni lu jënde bu ñëwee ne ma sama gaas daa jeex boo mujjul ma jox ko benn junni ba léegi am na ñaari junni wala mu ñëw ne sama almet daa jeex ma jox ko ca 500 mu yokk ci ab junneem wala mu ne sama daal dafa dagg nun la addunay doxe nag mooy kii góor arijalu qawaamun ala nisa kon day dem ba nga xam ne loolu ñuy xalaat naan dañ koo ëppale dana dem ba mu yàgg moom mu ëppale càmmiñam jii di Alioune Sall <clears throat> la ca tege bi ak bi lislaam di ñëw di def révolution bii mu def tey jubbantiwaat ni addunay doxe tegaat nit ñi ci yoon dafa fekk jigéen dañ ko daan donn ni ñuy donne alal ji lañ daan donne jigéen ah waaw waaw ni ñuy donne alal ji fas yeeg xar yeeg nag yeeg bëy yeeg tool yi noonu lañ daan donne jigéen bi suñu borom gisee ñuy donn jigéen daf ne bu leen ko defati an tarisu nisaa kërhan bu leen fi donnati jën jigéen ci farsu ñu ne waaw mu jële jigéen ca loola indi ko ci léegi dangay ngay donn ginnaaw daf koo jële ci zéro ci zéro indi ko bu ko indee ci cent loolu du nite li nit li nite mooy dañ koy indi ci cinquante pour cent muy xaar càmmiñam bi mu dolel ko yeneen ak lu mu ko dolli mu am nangam pour cent loolu nag sunu borom noonu la ko tëralee li dakari sa haddil ni góor ñaar jigéen benn orientaliste yi wax nañ ci lu ne bu ko defee ki nga xam ne jàngul diineem wala ma ngi koy jàng ca mbindum orientaliste ya luñ ko ci wax rek mu ne tout à fait luñ ko ci wax rek mu ne tout à fait waaw beneen tomb muy bi ñëwee dafa doon jubbantiwaat adduna mu bëgg jigéen tooge ne góor tooge ne ndax jaxasoo gi mën naa yàq jikko yu ku jigéen ki mën naa yàq jikko yu ku góor ki jaxasoo gi moo tax alxuraan di daw jaxasoo ga <coughs> mu bëgg jigéen xam yam mu bëgg góor xam fi mu jaxasoo googu hmm, la alxuraan jàngale ne moytu gaa gën def ga ndax yuusufa ak ndaw sa wéet ca kër gaak jaxasoo ga moo leen jural lan lan la naroon na jural waaw moo tax jaxasoo googu ñu koy tere ni ñuy defaree sunu kër yi ba demee ci kër yi sëriñ si duñ ko duñ ko tabaxe noonu luñ ciy bañ mooy jaxasoo gi lañ ciy bañ ak góor jigéen di dugg ko génn di jaxasoo ak wéet def yëf loolu la cay bañ bokk na ci yooyu qul lil muminina yaxuddu min yi wa yaxfazu furujahum dalika azka lahum inna allaha xabirum bima yasnaun wa qul lil muminati yaxdudna min absaarihin borom bi nee na yónent bi mu yónni woon ci noonu waxal góor ñi nañuy wàññi ni ñuy xoole waxal góor ñi nañuy wàññi ni ñuy xoole bu ñu wàññee ni ñuy xoole dana leen dimbale bañ mën a takk seen tubéy bu ñu wàññee ni ñuy xoole wàññi googu dana leen dimbale bañ mën a takk seen tubéy te takk seen tubéy moo gën ci ñoom gën ci pénc mi gën ci jigéen ñi yàlla nag li ngeen def xam na ko mu ne waxal gon waxal jigéen ñi ñoom tam ñu wàññi ni ñuy xoole seen bëgg-bëgg waaw waaye ñu ni ñuy xoole wa yax fas na furujahunna mooy mën a tax ñu takk seen sër kon yàllaa ngi wax benn programme bu am solo ci jigéen ñi nga xam ne ci làngoog yonent gi lañ far te ci lañ bëgg far ba ëllëg <clears throat> waaw loolu am solo la beneen bi beneen bi wala yadribna bi arjulihun bi arjulihinna li yu'lama maa yuxfiina min zinatihinna mu ne ko jigéen ñi far ci sag làng na leen wax ni ci seen démarche bu ñu dee dox nanu xam ni ñuy tege seen tànk ndax taar bi ñu nëbb bañ a feeñ ci nopp xam nga jigéen am na taar boo xam ne bii ci ndigg la lay nekk bu doon sunu penc mi ay fer lañ koy tuddee boo ci boolee ñett ak ñeent am na ci yoo xam ne boo ko doxee benn doxin wi boo rombee góor mën naa dégg benn son boo xam ne xam na ne li muy dégg nii ci ndiggal kii la nekk sunu borom ne ëpp naa def yéen jigéen ñi bàyyi leen xel ci loolu xam naa ku ko tëwiloon tawwi ko danga ci gis ne coquette yi kat kon ndekete coquette yooyu nga xam ne mooy jaar ci karo yi ah mbaa du indi son yooyu waay waaw ci di cheikh ca jàngalekat ba ndeysaan radiyallahu taala anhu kon wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yuxfiina min zinatihinna loolu xeetu taar la ci jigéen moo tax sunu borom tudd ko min na xeetu taar la waaye boo jàngee laay yi xam ne téerewuñu ko waaye tere nañ ko ko sol muy yëngatu ci biir nit ñi waaye boo jàngee laaj yi da nga xam ne kon téerewuñu takk yooyu waaye nag ñi ko war te dégg buñ ko dégg hmm? waaw ñi ko war te dégg buñ ko dégg waa kër gi sax am nañ ñu ko ca te dégg ndax taar bu nëbbu la kon daa war a nëbbu waaw loolu ci ñu far ci làngu yonent bi te di aw jigéen ñooñu la sunu borom di waxal foofu bokk na ci yooyu yaalamu xaayanatal ayun wa ma tux fi sudur sunu borom nee na kuy war ci bët xam na ko kuy war cim xel xam na ko mu ne rekk waay jigéen ñi bu leen war ci bët bu leen war cim xel bokk na ci yooyu waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahilatil ula waaw toog leen toog ci ji